gis nga Amadou Ba amul dara loo xam ne président def na ko pour fragiliser ko même na dama lay wax ne histoire Amadou Ba Amadou Ba est venu en 2016 dans la l'APR bi mu ñëwee dans l'APR président Macky Sall moo ko def ministre. c'est un disque rayé ça. dégg ma. c'est un disque rayé. dégg ma. c'est un disque rayé li Macky Sall Amadou Ba yëpp. bañ yaa ngi di wax waxu crédit. damay te créé yaa ngi fi doon wax léegi créé te créé gën a loolu déglu ma. ne. bañ koy tànn waaw da nga may déglu waaw mais da nga may déglu sànq ba léegi yaa ngi wax waxu créé te yi moo gën a yàgg loolu déglu ma parce que li may wax di nga ko dégg moo ko fal avant mu koy fal ministre daf ko bàyyi direction général des impôts bi mu ko fekkee def ko premier ministre def ko candidat élection. bi ñu ñëwee au niveau de la campagne c'est le président de la République tous les supports je dis bien tous les supports yu Amadou Ba campagne c'est le président ki l'a fait c'est lui qui a financé la campagne il a appelé le secrétariat exécutif en réunion d'après après ay difficultés yoo xam ne ñun ñëpp vivre nañ ko Amadou je vais te dire aujourd'hui Amadou Ba man personnellement il apple appelé ma dafa bëgg rencontrer ma dafa bëgg gis Ablaye Daouda benn moment bi campagne bi commencé dinaa la ko wax tey nga xam ko woo Ablaye jot ko Ablaye m'a dit que Amadou jot na ko war na fa ñëw moom ak Mbaye Ndiaye ñoo ànd man ak Ablaye Daouda la fekk si ñun ñeent ñi kenn raxuñu li may wax ñoom ñu may dégg quand Amadou Ba est il nous a di man dama ñëwoon seet si leen parce que jàpp naa ne affaire bi war nañu quand même ñun ñëpp ñu jàpp ci pour aller en campagne pour gagner Mbaye Ndiaye ngi toog li may wax Abdoulaye daa ngi toog moom Amadou Ba ci boppam ay parlé bi mu paree Mbaye Ndiaye a pris la parole bi mu paree moi j'ai pris la parole j'ai dit à Ba Amadou Ba yow xam nga ne quand Macky Sall di la tànn candidat on n'était pas d'accord et quant il vous a choisi ñun on a contesté le choix pendant une semaine mais après trois quatre rencontres ak le président Macky on a accepté de vous accompagner et sur le plan des parrainages gis nga exactement lañ te mën a ko diggante boobaak léegi amul benn acte bu ñu posé boo xamante ni ça va à l'encontre que li ñu waxoon bi ma paree Abdoulaye Daouda a dit la même chose ñu ne ko su fekkee ne y a des yow ak Macky Sall amoon il faut aller voir président Macky Sall ngeen waxtaan parce que ñun ñépp ñi nekk ci biir alliance pour la ak Benno président moo ñu boole yilif mu ne effectivement j'ai eu le président et je dois échanger avec lui je pense qu'ils ont échangé après il eu le secrétariat et nous tous on est partis accompagner la candidature de Amadou Ba aujourd'hui may mun a lépp lu ñu mën a wax lu dul on a accompagner fidèlement et loyalement Amadou Ba waaw déglu ma rek non déglu ma bu la neexee nga xalaat la neex la preuve la preuve il faut voir les résultat que les responsables ont eu dans leur localité nga xool est-ce que ils ont saboté oui ou non nga xool les résultat que le candidat ak ñeneen ak ñeneen ont eu dans leur localité ce qu'il y que les Sénégalais on voulu un changement ñun ñëpp xam nañ ko mais en ce qui concerne affaire Amadou Ba képp ku ci wax leneen après la défaite de Benno Bokk Yaakaar Ah, c'est ah, parce que aujourd'hui yaa ngi bëgg a wor walla yaa ngi bëgg leneen man aujourd'hui Amadou Ba ba fii may wax ak yow soo amee occasion nga wax ak moom je n'ai aucun problème personnel avec Amadou Ba mais je pense qu'il est encore membre de l'Alliance pour la République si j'ai un conseil à lui donner mooy qu'il continue l'aventure avec l'alliance pour la république et le man loolu laa gëm maintenant nag dafa am ñoo xamante ne nii leneen moo leen yëkkati ak leneen moom la ñuy dox moi je ne suis pas dans ça Abdou ngeen am un candidat à l'élection présidentielle ñu dugg campagne ñu reporter élection bi ñu ne des magistrats ont été corrompus oui. et le candidat est le corrupteur oui. yéen waa assemblée ngeen gaaw si c'est que je peux refuser. je peux refuser de revenir sur ça parce que yow sama léegi nii non non non. attends non attends sur ça. non donc pas sur ça. non yéen waa assemblée donc parce que yow loolu moo la intéressé. may ma xam nga yaa may ma non attends yaa ngi woon sénégalais am loo ni moom moo la intéressé. yéen waa teg commission d'enquête parlementaire pare gu ñu foofu ngeen voté le report de ñu fixé waat la dat de l'élection benno gisuma benn bennoo bokk yaakaar ñu responsable yu bari téye seen loxo Ablaye Sow toog na fii nee na euh, y a eu des problèmes y a des problèmes entre président Macky Sall et Amadou Ba président Macky Sall woo na ko benn yoon ne ko dafa bëgg a changer candidat gis nga secrétariat exécutif boobu ñu woote ne leen dem leen ngeen campagne il restait huit jours ci campagne ba le lundi euh, le lundi le mardi et le mercredi président Macky Sall dafa consulter ay nit il avait l'intention de changer le candidat après yow nga ne loolu ça n'a pas contribué à fragiliser le candidat ngeen dem campagne am na ci responsable ah, yoo xam ne defuñu campagne dañoo téye seen loxo am na ci ñoo am na ci ay kilifa ay DG yoo xam ne dañoo dem contribuer fële détourner li nga xam ne moom mooy électorat bi après nga bëgg toog fi naan man yéen fragiliser wu leen seen candidat ça c'est du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. voilà yow nag moom da ngaa mel ne yaay directrice de campagne Amadou Ba. waaye déglu moom ah. wax loolu moom la engagé man je te dis Amadou Ba man ci boppam li ma ko wax wax naa la ko fii gis nga dama ne amul dara loo xamante ni daam bennoo fragiliser na. li nga xam ne mooy la candidature de Amadou Ba tout ce qu'on devait faire. ba ci moyen tout ce le président support de com yi ñu defaroon dañu ko téye. waaw mais mais mais mais mais. matériel matériel bi mu commandé woon pour campagne ko dañ ko téye. kan moo ko commandé. Ah? moom li mu commandé. loolu dafa am ay ay ay c'est que nag yow yow ku ñeme yàlla nga. soo gisee Amadou Ba nga laaj ko kan moo commandé le matériel. ah non mais may may may mun a quand même. may mun a waaw non mais soyons euh, beaucoup plus sérieux d'abord les supports de communication n'étaient pas au CICES. c'était à au ah? ma nekkul woon CICES. am xam nga dara. Ah? moo tax gis nga da ngay ñëw. ñu ñu ñu wax la ay mbir. yenn yenn zone yi. may mun a soyons plus sérieux Benno n'avait pour fay ñi war a. may mun a ci li nga xam ne moom mooy moom mooy centre de vote yi à Touba jusqu'à 15 heures il n'y avait pas de représentant de Benno euh, dans les lieux de vote il y a des communes qui n'ont pas reçu d'apport après tout ça ngeen ne le candidat n'a pas été fragilisé toutes les communes du Sénégal toutes les communes du Sénégal ont reçu ñaata la non déglu ma la dama ne xam nga da nga ne qui n'ont pas reçu c'est totalement faux waaw ah, déglu ma non fois nee naa la yow bokkoo suñu parti bokkoo suñu coalition doo procureur doo juge doo commissaire politique li ma la mën a wax mooy da nga ciy yem mooy ñun suñu parti ak suñu coalition toutes les communes ont reçu des subventions ñaata du yow laa koy wax. am na commune yu bari yoo xam ne. waa dëgg lu ma ce sont des responsables qui se sont investis pour waxal ban commune. bari na na c'est totalement faux. bari na c'est totalement faux à Touba c'est Mahmoud Saleh qui s'est rendu compte à 15 heures que Benno n'avait pas de représentant dans les bureaux fekk boobu béy wéy na mbuus. c'est que c'est que xam nga li ngay wax. je prends à témoin Mahmoud Saleh ah ma xam nga li ngay wax nii c'est totalement faux je te dis je te dis y a aucune commune qui n'a pas reçu de subvention pour la campagne amul donc li ngay wax c'est totalement faux. bu la neexee non c'est totalement faux bu la neexee Abdou Mbow. totalement faux peut-être am na leneen loo xamante ni moo la yëkkati waaye man je ne suis pas dans ça non dara yëkkatiw ma ah si am na lu c'est-à-dire c'est parce que chaque jour su ma ñëwee fii nga commencé di wax ay non déglu ma c'est-à-dire c'est tellement flagrant que une partie de Benno une du ma wax sax Benno Benno était avec Amadou Ba hmm. une bonne partie de l'APR a joué pour la défaite du candidat c'est tellement flagrant loolu wa waxu mbedd la Sénégalais yi ñëpp a ko xam ah ok d'accord on a heureusement heureusement bi nga waxee ne waxu mbedd la. parce que wax bi mu ngi ci mbedd bi parce que man wax dëgg yàlla fii ma toog nii. yow Thiès. lan nga def Thiès je vous prends je vous prends. lan nga def Thiès euh, pour la victoire de Benno je vous prends pour quelqu'un de très sérieux et je pense que fii nekkuma ci mbedd. mais lan nga def Thiès yow Abdou Mbow. moi ce que je fais. pour la victoire de Benno ce que j'ai fait à Thiès. waaw waa Thiès xam nañ ko Amadou Ba bi nga xamante ni moom ngay waxal xam na ko moom parce que fekk na ma fa boo gisee Amadou nga laaj ko ko moom muy candidat bi comme yow yaay directrice de campagne bokk ko laajee dina la ko wax. la conclusion c'est que Amadou Ba a été fragilisé écarté et puis après. ban lecture lañ mën a am ci sur les actes posés par le président Macky Sall il signe un décret pour abroger le décret euh, de dissolution de de de de de de de PASTEF euh, il reçoit Ousmane Sonko Bassirou euh, Bassirou Bassirou Diomaye Faye ban lecture lañu war a am. ci loolu mais lecture bi ñu ci war a am moom mooy un président de la République. ah et avant muy dem non déglu ma un président de la République boo xamante ni avant muy dem. il a dit que je veux laisser un pays réconcilié avec elle avec lui-même du moins je veux laisser des Sénégalais yoo xam ne dañuy bokk ndey bokk baay mu initier un projet de loi d'amnistie boo xamante ni dafa doon apaiser li nga xamante ni mooy les tensions politiques mu comme ni nga waxee mu indi décret boo xam ne dafa indiwaat parce que loolu lépp ça participer ci pacification li nga xamante ne ni moom mooy l'espace politique et le président de la République a pris la responsabilité de tout faire pour que mu bàyyi un pays apaisé te gis nañ ne la mu doon def am na njeexital mooy dëkk bi am na dal tey jii yaa ngi gis les gens la ils reviennent sur énormément de décrets ñu naan woy président décret bii bi muy dem mais décret Pastef lu tax ñoom euh, Bassirou Diomaye fay euh, annulé wu ko donc dafa am décret yu am ndey dafa am décret yu ndey am ndey am yu amul ndey la loi pour quoi ñoom defuñu projet de loi automatiquement pour revenir là-dessus donc je pense que dafa am populisme boo xamante ni amul njëriñ le président de la république jusqu'à la fin ba muy joxe pouvoir c'était le président de la république le juge Dème l'a dit les décrets qu'on a annulés par rapport au conseil supérieur de la magistrature mais waroon nañu def consultation à domicile wala conseil supérieur de la magistrature pour mu am parallélisme des formes mais tout cela n'a pas été fait et des sachants l'ont dit pour dire publiquement mais, que c'est illégal donc pour dire seulement. wala sama téléphone baa ngi baa ngi toj. Euh, beaucoup de gens de de de Benno et de la paire sont en train euh, de de de me conforter dans ce que je. c'est-à-dire je que la campagne de Amadou Ba a été. chahutée xam nga kaay ma wax la benn affaire xam nga nit moom. waaw dégg ma tey jii kaay ma nga ñi nga xam ne. ils sont courageux dañoo war a ñëw fii ci télé dinañ ñëw waaw déglu ma rek dañoo war a ñëw fii ci télé eh, am na dëgg yoo xam ne dina génn ci kanam de non déglu ma dama ne ñi courageux nañu ñëw wax seen xalaat mais ay sama téléphone baa ngi man sama lut sama yoon ci sa téléphone buy sonné lut sama yoon ci say message bu ngay envoyé lu ma yëngale xam nga man lan moo ma intéressé que président Macky Sall ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon benn def nañ li nga xam ne moom la ñu waroon def et je pense. mais mais y a eu des problèmes y a eu des problèmes entre Macky Sall ak Amadou Ba déggoo li ma la wax dama ne. Ablaye Sow reconnaître na ko Madiambal Diagne wax na ko nee na bu wax jotee dina wax. man du ma Ablaye Sow. waaw ah. du ma Madiambal Diagne. Amadou boobu bu ñëwee ci man la nga xam ne waroon naa koo parce que kaay wax la benn affaire gis nga àdduna ku nekk am na loo moom am lu ñeneen moom ci yow may mun a du lépp lu nit xam rek wax ko. du lépp lu nit xam wax ko Amadou Ba quand il est venu ma jàkkaarloog moom li ma ko war a wax wax naa ko j'ai énormément de respect pour ce gars Amadou Ba parce que musuma ko gis mu wax lu ñaaw wala mu nettali ma leneen lu ñaaw musuma ko gis musuma ko gis donc man j'ai du respect pour ce ce ce je pense que comme ni ma la ko waxee les difficultés qu'il y a eu entre moom ak président Macky Sall ñëpp xamoon nañ ne am nañ des difficultés ils se sont vus ils se sont parlé le président woo njabootam waxtaan ak ñoom jël alalam def ci. jël moom Amadou Ba waa déglu ma waa dégg xaw ma vu wax ils ne se sont pas loolu lépp waxuma ko ils se sont parlé waa d'accord ils se sont parlé kon benn la rek waa d'accord Amadou def na campagne ba campagne bi jeex tegul ak président gis na ko gisu ko l'essentiel président li mu waroon a def candidat bu ñu tànn def na ko mooy jox na ko alalam jàppale na ko bàyyil na ko fii li nga xamante ni moom mooy euh, bilan boo xam ne mënoon na ci sukkandiku bàyyil ko fi um parti fort qui l'a accompagné ba li nga xamante ni moo am mu am maintenant nag il faut que les gens di wut ay bouc émissaire wala def leen gis nga nit ñi nañu dal nañu gëm yàlla bu ñu ñàkk ñànki ba pare nañu toog def opposition républicaine parce que comme ni ma la ko waxee gis nga am na loo xamante ni ku ko fi defit sénégalais yi dinañ la juger et je pense que il faudrait que les gens mais gëm yàlla may mun a nit ñi nañu gëm yàlla te xam ne ñun on était dans l'opposition yàlla def sénégalais yi fal ñu ñu def 12 ans à la tête de ce pays là sénégalais yi amul teraanga boo xamante ni joxuñu ñu ko waaw léegi nag yow sénégalais yi jël ñeneen ne nañu jiite nga bëgg a sa bopp ah no loolu nag moom du bor